salaamaaleykum wa rahmatulah taalaa wa barakaatu mbokk jullit yi ñu seetaan à travers Thiès Info ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax a baax tey nag ñu ñëwaat seet si nga xamante ni yaakaar naa ne dootuñu ko présenté muy euh, muxadam sëñ Mansour si borom daara ji yàlla na yàlla yokk leeram te tas ci barkeem euh, di sëriñ Habib Guèye euh, bu ngeen gisee tey nag ñu ñëw fii seet si ko muy bis bi journée bi nga xamante ni ñëwaat na muy journée boobee nga xamante ni kenn dootu ko fàtte muy bis bi nga xamante ni moom la euh, Serigne Mansour si euh, génn àdduna mu nekkoon lu tiis ci àdduna war nga képp ñu koy jaale àdduna yépp euh, loolu waral nag ñu ñëw tey daal seet si sunu sëriñ muy sëriñ Habib Gueye ñu fas yéene waxtaanee ku tedd kii muy sëriñ Mansour si kilifa gi ñu ngi lay ziar bu baax a baax a baax. asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jullit yi fi daje ak mbokki jullit yëpp. ci àdduna bi ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di leen balu xaq di leen baal xaq yal na yàlla boole baal ñi lépp luñ jaamu yàlla yal na ko yàlla nangu yàlla nañu yàlla def dëgg-dëgg jullit def ñu dëgg-dëgg taalibe defal ñu alal àdduna bañ liggéeyal ci lislaam bi liñ yéene ci diini jeeg Sénégal ak bokki jullit yëpp yal na ko yàlla matale ci barke yàlla Muhammad jërëjëf soxna si ñu ngi lay fay di la delloo sa wàccuwaay jërëjëf tey nag dañu bëgg ci waaw tabaarakallaahu soxna si yëg-yëg biñ ci am ak taxawaay biñ ci am euh, mooy tabaarakallaahu di euh, gën a gën a fàttalikuwaat Cheikh Seydi Mouhamed Mansour donte waxin la rek fàtte mënu da nekk suñ diggante moom euh, tabaarakallaahu tey fépp fu jullit nekk ci àdduna bi yaa ngi koy ñaanal Euh, bisu bis bi mu demee woon euh, ren ji la am euh, defe naa fukki at ak ñaar déedéet fukki at ren ren la am fukki at ci suuf tabaarakallaahu ñuy ñaan yàlla yàlla yokk leeram daanaka semaine bi yëpp ñu ngi def ay salaatul fatiha yi daan def ñu ko yokk nañ ko wàcce kaamil alquran ngir yàlla ak yenent bi sallallahu alayhi wa Euh, jox ko suñu baram mu mu mu wàcce leer gi euh, ci kàttanam ci yenent yàlla Muhammad ak sahaba ya ak mboolem kuy wëli yàlla mu wàcce ko ba ci Cheikhu Tidiane ak Cheikh Hadj Omar ak Seydi Hadj Malick euh, Serigne Babacar ak seeni rak ak alaaj Mansour ak alaaj Abdou Aziz Dabakh ak mboolem jullit yi tëdd ci Sénégal ak fu jullit tëdd ci àdduna bi yàlla wàcce ko ci yow ci barke Cheikh Seydi Mouhamadou Mansour radiyallahu taala ñu ñaan yàlla yàlla yokk leeram mhm. Mhm. waaw moom kay la yàlla wax rek wama ataakum rasul faqusoo wama naakum anu fantoo lépp lu leen yenent bi sallallahu alayhi wa sallam andil yéen julliti téye leen ci baleen ko tabaarakallaahu loola ca la nekkoon digleeb yàlla digle yenent yàlla Muhammad ca la nekkoon lépp lu yenent bi terewoon Cheikh Seydi Mouhamadou Mansour waxuma moom sax waaye njabootam du ci nekk ko ko yaakaar ci wàllu yàlla doo ci nekk ndax euh, ni mu bàyyoon xel yàlla bàyyi xel yenent yàlla Muhammad bàyyi xel diini lislaam bàyyi xel charia bi bàyyi xel tariqa tijaan bàyyi xel ndono Seydi Hadji Malick bi euh, loolu moo taxoon tabaarakallaahu jikko yi Yonent bi sallallahu alayhi mu ngi woon ci moom jërëjëf. Hmm. waaw waaw dundam yëpp dundam yëpp daf ñoo marqué dundam yëpp daf ñoo marqué euh, tabaarakallaahu rawatina njàngaleem. waaw ni mu daan jàngalee ci diine ji ni daan jàngalee ci sariya bi ni daan jàngalee ci fànn xam-xam yépp euh, marqué nañu tabaarakallaahu rawatina ni doon dimbalee jullit di jël ay ay kër di ko may ay nit di jël ay terrain di ko may nit di jël ay billet màkk ay million billet màkk mu may ko ay doomu aadama euh, di dimbali nit ñi ci saayir ak baatin bu ñu waxee baatin bi nag mooy lépp loo xam ne nii mu dal doomu aadama bi te mënu ci dara moom bu ne allahuma rek yàlla def ko lépp lu mos a wax yàlla rek yàlla def na ko amul dara lu mos a wax yàlla te yàlla defu ko waaw alhamdulilah euh, xam nga euh, la ko tàmbalee ci yeneen ci yàlla Muhammad ba ba ñuy wal bufta bi du dañ mukk yàlla am ñu koy nekkal ci kaw suuf ñoo xam ne nii ñii da leen ñii moom. Euh, ñoom ñoo fi nekkal yàlla te xol yi danañ nangu ne kii dafi nekkal yàlla loola nag doona boobu muy waari sa boobu du fi jóge ba ba ñu wal bufta bi te toujours wëliyu euh, doomam dana ko donn doomam dana ko donn mais dina am loo xam ne nii waari sa boo xam ne nii daf koy jox koo xam ne nii du doomam kooku itam mën na ko jox keneen koo xam ne du doomam euh, du tere doomam donn ko waaye Cheikh Sidi Mahamadou Mansour radiyallahu taala anu euh, moo waxoon ci dundam ni ma sooy ñaan mooy tala juum loo wax yàlla dana ko def mu ni ma aajo budul fajoog jàngoro bu wér du ñëw ci yow mu ni ma lépp loo ñaan yàlla yàlla dana ko nangu ah tabaarakallaahu euh, gis nañ ne lépp luñ ñaan yàlla yàlla defal nañu ci sutura loola nag euh, moom ijaaba bu ko yàlla mayal la may la nga xam ne tabaarakallaahu dafa jubóog yàlla li taxoon tamit mu juboo yàlla mooy jub gim juboon ak sell gim selloon ak mbaax gim baaxoon ak xolam bu rafet ba ak yéene doom aadama yépp jàmm rawatina julliti yépp mu yéene leen jàmm ba pare jàmm jooju mu taxaw ca pour mu am loolu la ko yàlla defaloon. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Eh, eh, waaw. waaw dëgg la xaqan mhm. waaw sëñ Habib mhm. mhm. xam nga wëli yu yàlla moom su la yaree fokk nga jël euh, jikkoom yi nit euh, nit ku dul nitu yàlla sax euh, nitu àdduna nit ku xaw a doy waar sax bu la yaree di jël ci moom jikko waaw rawatina nag wëli yàlla boo xam ne nii euh, dafa am xinaaya ci suñ borom nu bëgg nga mel ko rek yàlla dana la ci dimbali nga mel noona lépp nu bëgg nga mel ko rek yàlla dana la dimbali nga mel noona fa tabaarakallaahu man ni ma mel nii noonu la sëñ Mansour bëggoon ma mel ko yàlla nangu na ko jikko jéeg waaw tabaarakallaahu ah man tagguma suma bopp mais man damay wax nit ñi ne leen man lu baax bokk naa lu bon bokk ma loolu tënk na wax ji lépp lu baax rek man bokk naa lu bon bokk ma waaw. Mhm. Mhm. Mhm. ñaan. déedéet du ñaan du ñaan du ñaan du bind. waaw xam nga. waaw waaw xam nga. teg ci. waaw waaw xam nga ñi ko miin ñëpp gis nañ ne moom doo gis sax muy jàng dara wala muy wax dara dangay ñëw rek mu jël loxoom bi rek teg ci bopp bi rek teggi mu wér loola am nit cancer na ba tay wala mu yor feebar bu garaaw boo xam ne tubaab yi gis nañ ne kii day dee mu jaaxle dem ci sëñ Mansour euh, muy cancer rek lu mant doon da ngay ñëw rek mu mu jël loxoom bi teg ci bopp sa bopp rek wala nga jàkkaarloog moom mu ne la demal defaat analyse suñ ko fa fekkee nga bama soo demee defaat analyse doo fa fekk dara ñu ne la foo fajo nga xam la nga xam noppi wala nga ne man ci sëñ Mansour laa jaar ñu ne la kooku yàlla may na lu ko may na ko lu ko lu loolu fekke naa ko ba tàyyi yow dof waaw waaw mu jaaxal ma xam nga tamit waaw xam nga tamit ñun euh, ci kër nit yàlla lañ juddoo sama maam wali la ci këram lañ juddoo euh, sama kër parce que sama maam euh, bi jur suma way jur nit yàlla la woon bu mag suma ñaari maam yëpp parce que man suma yaay sama bàjjan la sama papa sama nijaay la sama papa su ma juru doon itam sama nijaay la nijaay laa koy wax parce que magu sama yaay la sama yaay it bu ma juru doon dama damay wax sama yaay bàjjan parce que rakku sama papala la euh, seen ñaari way juri bokk euh, euh, baay loola du lu ndaw léegi a ah, tabaarakallaahu ma juddoo foofu yaroo fa di gis ñuy faj ñu gis ñuy def lu ne ci kéemaan ci wàllu ñaan waaye sëñ Mansour moom li mu yoroon du du ñaan waaw loolu loolu xam nga ñaan mooy duwaaw mais sëñ Mansour xabar la yoroon xabar waaw xabar euh, da ngay yegg ci yàlla foo xam ne yow dangay ngay ruusati ñaan yàlla sax da ngay ruus yàlla yàlla moo wax ne ud'uuni astajib lakum ñaan leen ma may leen waaye am na koo xam ne ma misaal la ko tuuti ma doog ñëwaat foofu tuuti soo doon da ngay dem ci benn kër kilifa saa yoo demee mu may la. saa yoo demee mu may la est-ce que di nga demati foofu noonu ne ko may ma léegi boo delsee euh, sa taxawaay mooy jërëjëf sant da ko war a sant rek soo ko santee rek dana la mayaat waaw dootoo ko waxaan may ma danga naan ko jërëjëf jërëjëf nga sant ko wax mbaax mbaaxam mu mu mayaat la yàlla yitam noonu la mel yàlla dafa ne adduhoo nii la lakum ñaan leen ma may leen waaye kenn gisul mu gëñ foofu moom yàlla gëñut ci mbiru ñaan gëñut fa waaye xoolal nag ca cant nu mu fa nu mu fa gëñee la in sakartum la asidanakum gëñ naa man yàlla ne ku ma ku ma ku sant ma gëñaat ne danaa la doole gis nga ba muy wax du ñaan waxut gëñut fa waaye waaye ba muy wax cant gëñ na fa donc Serigne Mansour ci maqaama cant la nekkoon waaw mën naa am euh, tabaarakallaahu euh, foofa la teg mbiram mën naa am itam teg na mbiram feneen euh, ci wàllu yàlla parce que yàlla mbiram géej la yàlla mbiram géej la waaye man li ma xaatir mooy man Mansour daal ak xam ko ci moom gis ko ci moom mooy euh, lim yoroon ëpp na ñaan waaw euh, da nga daan ñëw rek toog mu ne la nangam dana am mu am ci kàttanu yàlla wala nga ñëw rek toog mu ne la lii nii lay demee di la wax lu ñëwagul ne la nii nii lay demee waaw ndax gis nañ ba tàyyi ay nit ñëw toog ci kanamam mu ne la yow doom bu góor ngay taaloo suma turandoo lay doon te yow marié goo mu ne la suur tel ngay marié ku lay takk nangam lay tudd loolu def na ko ba tàyyi waaw toog nañ ba tàyyi itam nit di wax feneen leneen ñëw toog ci kanamam mu nettaliwaat la ko toog nañ ba tàyyi itam toog ci kanamam di am lu muy xalaat bëgg sëriñ Mansour leeralal ko li muy xalaat sëriñ Mansour tontu ca loola leeral ko ko waaw nañ ba tàyyi tamit ñu yeew dafa indi mu ne yeewi leen ko nit dafa tedd ñu yeewi ñu ne kii kat dañuy bañ mu déconné fii mu mu turbale fii mu ne yeewi leen fii xadara bi dara du yëkkatu ñu yeewi dof bi mu ñëw sukk ci kanam sëñ Mansour mu jël loxo bi teg ci bopp bi teggi rek dof bi wér ah moom nee na man duma jox dof rendez-vous borom yi jinne duma ko jox rendez-vous waaw nii li nga gis fi ni nii tey mu xew ci jamono ji yu doy waar yoo xam ne nii tey euh, jabarkat yaa ngi koy def da day gëna yokk nga gën a xamaat dimension sa kilifa xam ne lim yoroon bokk bokk dëgg li xew léegi waaw te lu dul loola rek du dëgg yàlla moo ko mayeen loolu. Mhm. Mhm. waaw waaw <laughs> Mouhamadou Bachir sama doom mhm. waaw waaw jërëjëf fàttali mhm. jërëjëf waaw loolu yàlla defoon na ko soo gisee ñëpp bëggoon ko daara ja dafa daan wàcce ay toni ceeb di fa wàcce ay bërigo diwlin di fa di jox xaalis ñay togg ca daara ja dara du fa manqué ah loolu itam ñu nit doon nañ ko ci loolu tey alhamdulilah daara ji ma yor amut yalwaan amut fay xale yaa nga fa fees dell macha allah waaw waaw amut yalwaan amut fay Euh, ka fay jàngale mu fay jàngale lu am jàppale ko ko tabaarakallaahu gune yaa ngi fay mokkale alquran waaw déedéet du fay déedéet du fay du fay. Mhm. Mhm. Mhm. waaw waaw radiallahu waaw xam nga de waaw dafa neex xam nga nga am nga am sa wasi sa seexu mu rabbi sopp ko Euh, mu nga am photom euh, mu génn àdduna nga jël photom def ko ci sa saal waaw waaw <laughs> waaw macha allah rek xër rek waaw waaye du leneen loo xam ne nii lum ñu digal la wala loo xam ne nii tabaarakallaahu luñ ci kii leneen xër rek ak bëgg ko rek ak sopp ko rek waaw ndax ñun Seydi Hajj Maalik radiyallaahu taala anhu mooy suñ sëriñ mooy sama sëriñ Euh, tabaarakallaahu kuy doomam ak sëtam yépp sama sëriñ lañ ma bëgg leen fonk leen euh, sopp leen lool te yàlla tax waaw am cofeel lool ci ñoom euh, xormaal leen tabaarakallaahu bëgg tabaarakallaahu képp ku leen bëgg ma bëggaale ko sax yàlla def na loolu. waaw. waaw xam nga xam nga lu ko waral Cheikh Seydi Mouhamadou Mansour radiallahu taala anu xam-xam la daan waxtaane xam-xam la daan waxee lépp lu mu wax rek alquran la lu mu wax hadis la lu mu wax euh, waxu yàlla la waxu yenent bi sallallahu alayhi wa la wala waxu maamam Seydi Hadj Malick wala Cheikhuna Tidiane te Seydi Hadj Malick si radiallahu taala anu ak euh, Cheikhuna Tidiane Serif radiallahu taala anu ñoom lépp lu yàlla digle lañ digle lu yàlla tere lañ tere waaw moo tax tabaarakallaa waxut bu bu jógee ci yàlla du xeewi waaw lépp loo xam ne waxul suñ borom la du xeewi jamono da koy gën a dëggal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu mu wax du xeewi jamono da koy gën a dëggal mbokk yeeg xarit yi comme ni ngeen ko gisee ak ni ngeen ko déggee nee naa la nag duñu tey mukk di di seet si suñu sëriñ bi di waxtaan ak moom ndax waxtaan bi dafay am solo loolu ba nga xamante ni duñ ci doyal benn yoon macha allah ñuy waxtaanee ku tedd ki di sëñ Mansour Sy dégg ngeen li wax ci moom euh, sëñ bi euh, euh, bëgg nañu itam xam naa ni li ñu jox ci wattu léegi mu jeex nga nga defal ñu rek benn wax ñaan wala message boo xamante ni tey li xew ci réew mi defe naa ni kenn du la ko wax yàqu yàqu yàqu yeeg waxante yu ñaaw yeeg yu bon yi eh, nga nga andi rek tuuti ay waxtaan. jërëjëf eh, soxna si tabaarakallaahu yow suñ rakk nga suñu njaboot nga ci bi nga bokk eh, tabaarakallaahu li nga ñu wax noonu am na solo ñu ngi wax ne nit ñi waxuñu sax réew mi rek yem ci mais àdduna bi yëpp la ñuy waxal nañ fexe. kenn ku nekk euh, kenn ku nekk euh, mucc ci làmmiñ nit ñi nga sa làmmiñ mucc ci nit ñi kenn ku ne sa làmmiñ ci nit ñi ndax euh, nit ñi dañuy fàtte ne yowmal xiyaam dana am taxawaay bis feñ ci dana am te képp ku wax ci mbindeefab yàlla safaan wala nga sosal ko dara ah wala nga waxal ko loo xam ne nekkul balaa ngaa dugg aljana di ngeen ko layee ak ma waaw képp koo xam ne ni jël nga sa làmmiñ teg ko ci deru nit dara safaan balaa ngaa dugg aljana di ko layee ak sa borom di sa sa borom dina leen àtte kon euh, nit ñi buñ topp bànneexu internet wala bànneexu média wala bànneexu waxukaay yi di di wax rek di sos di dem ak euh, dugg ci yoo xam ne bëgg ay vie yu bari tax nga waxe noonu nañ bàyyi xel seen tëraayu bàmmeel billaahi lasi laa ilaaha illaa kenn ku ne loo wax ci nit balaa ngaa dugg aljana yàgg moom di ngeen ko layee ci kanam yàlla kon nag nañ bàyyi xel doolu ñu gën a moytu waaw julit julit ah hmm, jullit euh, dafay moytu dere jàmbur yi di moytu xàqi jàmbur àq baaxut te nga jaamu yàlla julli wor jamu yàlla liggéey sa digganteeg yàlla ba mu rafet ëllëg nga ñëw taxaw ci kanam yàlla yàlla àtte la nit nga nga nga jël euh, àqam yi moom àqam yi nga jël ko ñu sarse la ko boo demee ba àqam yi set wecc ñu jël say tiyaabo di ko ko sarse te yàlla ëkkamu bi akimi na allahu ëkkami bi akimi na yàlla képp kuy àtte fii ëllëg moo lay àtte dégg nga te it euh, lu mat a bàyyi xel la muy suñ diggante ñu nu neen doomu aadama yi doom aadama ak doomu aadama rawatina koo xam ne sax yow xamoo ci moom dara mosoo koo gis ngay wax ci moom safaan loolu loolu na ko nit ñi bàyyi xel te kenn ku ne ëllëg bis dana ñëw ñu takk sa ñaari tànk yi gas pax ba ñu dugal la fa bàyyi la yàlla nga wéet fa yàlla ak sa jëf. Mhm. waaw. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw ñeme yàlla xam nga euh, nit su ragalee yàlla rek fokk mu ragal lor mbindee fi nit su ragalee yàlla fokk mu ragal xàq te loolu lépp ci ñeme yàlla la bokk lu mat a bàyyi xel la nañ moom lay lancé noonu ne nañ ko moytu ndax ku ci nekk tey soo dee di nga bëgg suñ borom jéggal la te suñ borom su la jéggalee te fekk nga ameel kenn àq àq boobu suñ boroom du ko jéggale mënu ko du ko jéggale daal yàlla lu lu manul amut waaye côté boobu mandu na ca waaw lu ca man lu la ëllëg nit dana dugg safara fekk moromu jaamam moo moo tax mu dugg safara waaye du diggante moog yàlla diggante moog nit la nañ moytu loolu waaw. Mhm. Mhm. Mhm. waaw. kay ngoog euh, euh, waaw def. waaw def naa ko fii juróom-ñeenti at waaw def naa ko fii juróom-ñeenti at après xajatut fi année bi ma koy jëkk yóbbu fële nooto booba fekk na sax daanaka defaguma fa dara dama bënn teen rek def fa benn bâtiment waaye léegi macha allah def naa fa valeur bu 2 milliards fi mu toll nii journée bi foofu lay am ren la ñaata édition ah sixième si ren la sixième édition bi si nooto waaw ren la juróom-benneelu édition bi Euh, le 11 février bii di ñëw la le 11 février waaw ajjuma ji ajjuma ji euh, Oussa Aline Diagne ak euh, Oussa Souleymane jaw ak Oussa Samba Mbodj ñoo koy taxawe ajjuma ji ak ak El Hadj Malick Guèye ji rawatina nag Oussa Aline Diagne ak Samba mboj waaw ajjuma ji bu ñu xaadaraa ba pare fa la ñuy nekk ba minuit ñu doog a kii nit ñi doog a fanaane bër set di samedi bi waaw la moom daal la 10 ak la 11 la journée bi hmm. waaw incha allah seen télé bi yàlla na Thiès info yàlla na yàlla yeggale ko fi mu bëgg a yegg yow tamit nga yàgg dem ba am say télé bopp yu mag a mag yoo xam ne international la yow nit ku yaru nga ku baax nga ku ku yiw nga nit ku ku yar nga nit ku ku yiw nga ku baax nga yal na yàlla dooli la jàppale dooli la sutura sa xol bi dafa weex tàll yal na yàlla barkeel la barkel sa caméraman yi kontaan nañ ci yow euh, yow soo soo ñu woowee téléphone bëgg def ak ñun émission dañ ciy sawar ndax sa jikko ju rafet yàlla na la yàlla branché prix su sëñ Mansour yaag sa gars yi ba ngeen nekk milliardaire bu mën a liggéey l'islam bi ci barke sëñ Mansour Fatiha salaatul Fatiha